campagne bi mooy dama tànn tànn nag soo ko déggee mooy am na loo war a téye ak loo war a bàyyi li nga war a bàyyi mooy lu lay lor li nga war a téye mooy lu gën si yow méngoo ak li say waajur di xaar si yow su dee jeune nga euh, mais aussi su dee boroom kër nga walla soxna bu sëy nga nga xool li gën ci sa wérgu yaram dañu wax ni euh, doomu aadama dafa war a am doom su dee mu ngi ci sëy jigéen bu nekk ci buumu sëy dafa war a am doom waaye na ko def ci anam yoo xam ni dana mën a surveiller wérgu yaramam du ko lor ci wérgu yaramam loolu du am solo la du lor njaboot bi ci seen wérgu yaram du indil njaboot bi benn gàllankoor loolu mooy tax euh, ñu am ay famille stable ay famille sécurisée loolu la ñuy bëgg partager ko tey euh, depuis ñetti at ñu ngi ànd ak suñuy partenaire ñu ñu leen di woowee TCI ñu déroulé programme boo xam ni ah programme bi ñëpp gis nañu njëriñam ci ndaw ñi ñu koy yeesalaat